ñëwal kër local la ñun ñoo moom. di ci soññu Sénégal yëpp ñu consommé ko. Sénégal kër fay kan gi yegg la ñun ñoo ko di ci soññu Sénégal yëpp ñu consommé ko. sa jegi mi jegi so sa ari mi ari wagan yettimode est-ce que dégg nga loolu yow he's do nothing this guy is gonna do nothing maanaam kii dara I give him my life. I give you my life. Teboya Machakar, loco. You're gonna do nothing. Me entiendes o no? Teboya Machakar, tío. Eh. This is Zarco, boy. You don't see me? Boy, ¿qué me estás mirando? ¿Me estás mirando, boy? Yo, go ¿Eres loco o qué, tío? ¿Eres loco o qué? ¿Me estás mirando? ¿Me estás mirando? I don't care nothing in the life. ¿Estás listo? dañuy waxtaan rek dañuy waxtaan rek. dañuy waxtaan rek loolu ci la sew. loolu waxtaan rek sa loxo yow eh. sa loxo mën ngay waxal de. du gën a dugg naaj bi du gën toog du mot. sadap maa ngi lay def sadap. te booy a comer tío te booy a comer bibo te booy a comer bibo te lo juro booy. te booy a comer bibo. disi zarko loco es loco del barrio loco. ah il a il a xam ne que c'est loco del barrio loco. c'est le 17 décembre. Bàyyi leen ñu géem bàyyi leen ñu géem ñu dul koy comer vivo, tío. Te lo juro por te voy a comer vivo. Shut up. Yo, tú no me puedes machacar, tío. Me puedes quedar, tío. Oye, háblale lo que estoy diciendo, que boy, Bu dee ngay root nga wax ma boy. Ma gën a yàlla yow gëmoo yàlla gëmoo yàlla boo gëmoon yàlla doo bëre booy kaajate la ma li ta bokka demal la tëjal sa gémmi booy waxal te bul ma laal dama ni la dama ni la nga wax te bul ma laal dama ni la nga wax te bul ma laal dama ni la nga wax te bul ma laal waxal te bul ma laal soy bu leen yàq face à face waay bu leen yàq xarit waay sëñ laa ilaaha illallaah. waaw la sëñ bi loo def yow yow doo def yëfu grand frère doo jóg àtte sa rakk yi. ku am bis. ah contrat jàmbur ma gis gaañee foo jëm. papa papa papa waaw wuy ma waaw wuy ma eh Diène waaw wuy ma affaire góor mais sa papa jóg na toogal bul wax sax wuy ma waaw wuy ma yow laay wax waxoon naa ko léegi dafa wóor na ñëw léegi dafa jóg tey bul jóg jaxasoo ko àdduna toogal fi nga toog. lii maa ko gën ñaar yi ñu ngi xuloo. waaw mais xam nga ay ponkal moo leen atte. man damaa. xanaa doo ponkal ni ñoom. ma toll ñoom. man pes bi. jën dana ëpp. léegi yow tam ah lan la wax léegi. alhamdulilah jeex na ñoom dafa am lu ne ñëpp xamee. loolu daal moo rek. yéen daw suñu yaram. bu dee dafa doon. bu ko

mbër yu ndaw yi lu ñuy def. mais yow mënoo àtte ñi waaw bu ñuy jàppante. maa ngi tuddee loxo Zarko mu fi tax looloo tax ma bàyyi. ñoom bu ñu defee parce que moo la bu doole moo tax. ma doole de. waaw ah. mais ñoom bu ñu defee li man lan laay def. mais dañuy jaay combat bi rek. waaw mais tamit xam nga lu ma la wax. dañuy jaay combat foofu ngeen ko defee. s'il vous plaît on se calme quoi. ay mag lañu ay responsable ay kilifa lañu. lu ñu waxante lu ñu waxante ku ne dem sa yoon. loolu am na solo bu ñu tëjee barrière yi nag ku mën a rey sama ku mën sa morom yey ah Nara. kenn nag bu ma vidéo de. nii may bëre. kan kee la grand champion champion d'Afrique. waaw bu ma vidéo quoi. da ana waa Sénégal ñan la. waaw war waa CNG waa CNG yi nii. père kay bu ma vidéo. nee na bul ko filmé. kii kii seen YouTube la yor day di ci boppam. bokk lool bokk nga yor seen YouTube. kii teraanga la la bëgg a euh, fees. ah la demee noonu la demee nee seen YouTube la yor bul ko xañ teraangaam. yàlla na ko yàlla ma teraanga. waaw mais seen YouTube vidéo man dañ maa ko war a vidéo te keroog vidéo naa sa moom dafa moom dafa yor seen seen la yor boo ko dimbali rek. waaw ah, garaaw baal na. kon kay filmeel wax ko filmeel. père filmé ma. wàcceel li noo gisee nii combat bi grand combat bi ah, ñoom. Hmm, baal ma may leen loolu grand combat ñu bëri ko. Hmm. kon jeex na. mais seetaan ah, démb ñëwuma. Ah, ñëwoo kay. damaa demoon Mbour. waaw. ci Bombardier borom la 24. sa pardon mais xaaral ma mere. loo looy mer. yow xam ma dem ñëw. Sénégal ka fay kan ngi yegg na fay say facture moo ci gën gaaw jëfandikoo. KPR transfert local la ñun ñoo ko di ci soññu Sénégal yëpp ñu consomé ko. Sénégal ka fay kan ngi yegg Sénégal ka fay kan ngi yegg fay say facture moo ci gën gaaw. KPR transfert local la ñun ñoo ko moom. di ci soññu Sénégal yëpp ñu consomé ko. Sénégal ka fay kan gi yegsi na.